yow mi am jafe-jafe ci walu new katan sa ndoxu awra baxul wala sax sa awra noy kay ma jox la solution bi ci gëna gaaw produit 100 bio baa ngi muy produit bo xamné dafa naturel amul ben effet secondaire dañu la koy jox nga bolé ko lem ak limon diko nan matin ak soir mu daldi safara saafara say jafe-jafe neexal sa bir néegu sëy am nañu pomade bo xamné ne diwé ci sa awra mu daldi kuy dëgeural di jël ko waye nak duko guddal manila bile pomade momitam dafa naturel lépp lu ci jël d'où le durel Ben effet secondaire Jokol ak ñun yow mi ko 77 751 59 59 wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am satisfaction totale Boko amul ñu nous di lay dello sa xaliss ñun rek dibiterie Uba pour la première fois dibiterie professionnalisé professionnel on musoko la mosoo am suñu marinade bop am suñu cafka bop am suñu secret bop na nga xamé ni non la McDonald amé ay secret non la dibiterie Uba amé ay cream dibi Uba saf yap Uba méchoui Uba poulet ouba, pigeon ouba, pentade ouba, bol ouba. kaay ma wax la Fudibi dibi 77 629 0000 00 fa saaf 77 633 57 57 Fou Michui Nehe, mooy dibiteri ouba Fou poulet Nehe, mooy dibiteri ouba te nag kaay wax la ouba livrer le fangané. ne bu la neexee tamit nga tok sa kër defal commande Tabaski defal say commande boo amé xew defal say commande boy dalal ay nit defal say commande nga xamni débiteur débiteri Uba dalay defal méchoui bu tok do defal dara débiteri Uba livré la cey Uba moo jaaxal réew mi <laughs> toujours ci seen acte du dañ leen di indil beneen élément boo xamante ni dama bëgg ñu seetaani vidéo bi dellu si ki may njëkk mooy Pape Alé Niang Sénégalais yi laa bëgg ñu def nànk bu baax peut-être que Pape Alé li muy wax kan la fu mu dëkk ku ko fay nee na 40 000 ak nan lañ ko fayee wéef la ok na def capture bi bu defee capture bi daañu xam numéro bi numéro bi numéro kan la man de personnellement ngeen may ma tuuti parlant de numéro ngeen may ma tuuti ma yónnee ko régie parlant de numéro donc euh, voilà parlant de numéro may ma tuuti voilà man mom sumay wax day boti sédé da ngay def comme man voilà da ngay def comme man nga affaire yi mu lèr bàlle ma de may leen tuuti rek voilà may leen ma tuuti maa ni yónnee ay capture ngeen ne defal ma ko dajj ci kaw voilà ngeen defal ma ko dajj ci kaw voilà ba Sénégal yëpp gis ko ñu xam booy wax nu muy mel voilà voilà maa na koy yónnee mele ma tuuti pour mu leer ba ko pour mu leer voilà mele ma une minute rek une minute rek kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo boobu nga xamante ni kii di Bah Diakhaté réalisé na ko am ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko ci journaliste boobu di papp Alé Niang comme nous l'avons dit, waxee rek Aïssatou journaliste Sénégal journaliste la woon ñu ko ci journaliste dafa journalistes. ci journaliste dem Ousmane Sonko intérêt personnel C'est la ci donc nous avons ni ñoo avons kàddu yi nga qui ni fait di euh, Bah Diakhaté aussi ku ci nekk ci yéen umpul leen ni que dégg ngeen audio boobu nga xamante ni kii di Pape Alé Niang mi ko doon wax ak sëriñam jëm ci wàllu grève de la faim bi mu doon def maanaam juste ben tappale la won pour guen ci kasso bi ba ca top dem na serignam dama bëgg nga ligéyal ma kii di juge du deuxième cabinet Mamadou Seck ba nga xamante suma su la mom moom daf may jox sama passeport lijjanti naa ba nopi rendez-vous ambassade France li gënoon jafé kon pap Alé limu bëgg a jot passeport am génn réew mi dem tukki ji je crois que lolu ba jaxaté confirmer nako ci audio ba nopi confirmer leen aussi transfert Orange Money muy cent mille francs yi ak transfert bu mu yónnee serign bi par Wave moy limay wax rek ñun duñu waxantou

pour xol fan lay jaar pour ëllëg ak ci biir lu am mu accuser ko kooku ni ko Olaf Njaay waxee rek kuy tukki ak kuy bëgg a dee neex na ñoo muñal parce que kenn mun leen téye lu nekk danañ ko def donc je crois que ñoo déggandoo révélation yooyu nga xamante ni Bah Diakhaté yëkkati na ko ci Pape Alé comme ni ma leen ko waxee woon rek ba mu génnee ci métier journalisme dugg ci politique bi manipulation la fi nekkee maanaam wax loo xamante ni dafa safaanoog dëgg moom ci boppam moo fi toog ne interviewé na nervi nervi bi wax na ko ñaata nit la rey fi mu leen suul kan moko ko jël ak nim ko ko fayé par Orange Money ak Wave té boobu batay tey kenn gisul interview bobu té gisuma ku ci poser wu question laaj koko té chaque jour ma gis len ni taxaw di défendre Pape Alé di naan nitu dëgg la nangam sangam ak di bind sen page Facebook ba ci ñenn ci ay journalistes yo xamanteni mu leer na len hypocrisie dong moo len ci yobbu fo tourner sen page Facebook ñi ngi nan nangam sangam sama référence mais sa référence ci fen sa référence ci ku dul wax deug sa référence ci ka nga xamante day manipuler je crois que c'est la honte nit da ngay ñëmé deug di wax deug

di wax lu dul dëgg di manipuler ba tey jii gisoo ci ndam ndaxte ndam bu ci njëkk maanaam mooy lan teg nañ la sous mandat de dépôt lan ngay xeexee nga ne grève de la fin lan ngay xeexee nga ne réanimation lan ngay xeexee ne génnaan te loolu yëpp mu leer na le dara du ci dëgg amul mbindeef bu mën a toog ci àdduna fanweeri fan lekk jaarul ci sa biir nga taxaw di résister loolu amul fenn kon yaakaar naa ne ñi am xel souvent suñuy déglu war nañu xam lan mooy dëgg ak lu dul dëgg kon donc manipulation yi la donc toujours li bah wax je crois que firnde yu leer nañ la kon askan bi lay waxal ki di jox information moytul ma Ousmane Sonko je crois que Ousmane Sonko c'est quelque chose boo xamante mi suñu passé nañ ko ko suñu li suñu kanam Sénégal la jëm ak lan koy je crois que ñu fàttee ko xool lan Sénégal avance. mooy ni ma koy waxee lu waaye ren di sa loxo lay naaj li nga jiw démb moom ngay góob li ñu ji démb nag ci ay fen ci ay tappale ci ay naafeq ci ay wax yu dul dëgg yaakaar naa ni moom moo feeñ tey ni ma koy waxee nag man Tange Tandian képp kuy taalibu Ousmane Sonko àdduna ba yowmal xiyaam doo ma mës a bëgg. képp kuy taaliba Ousmane Sonko doo mës a yëkkati kàddu bu baax teg ko ci man ndaxte lenn ma ñor muy dëgg dëgg kenn ko moom muy yàlla subhaanahu wa taala donc yàlla jooju lay xool mais ki nga xamante ni ci fen nga dëkk ci sos ak manipulation ak ki nga xamante ni day indi fen ak sos bi nga teg mu teg ko ci dëgg illaa yow mi diine doo ko bëgg kon yaakaar naa ni comme ni ma koy waxee rek Euh, la parole est libre mais le commentaire aussi est libre Lou waay neex na wax lou waay neex na def mais li am solo moy li may wax yeen talibé Ousmane Sonko da ngeen di souffrir pour déglu Ça yu ngeen di dégg déglu da ngeen di souffrir sen xol day bon té dëgg la leen di tégal. dëgg joju mënu leen ko teggi mënu leen ko wéddi. da ngeen di dem ba xam ni ka man mi dëgg la leen di waxal mais dëgg joju buggu leen ko duggal sen nopp ndaxte fen ngeen làmboo fen ngeen soxso saa su ne ci luddul dul dëgg ak manipulation ak bëgg jaxassé askan bi askan bi nak tuuti ngeen ci pour jaxassé ko comme ni ma koy waxé saa saa lu xew rek ngeen profito ci pour taxaw wax man nak ma jël sama bop exposer ko ci caméra yi kon duma bañ ko wax ci man saa su wax seul euh, le train qui est avant mom la ñuy le chien aboie nak la caravane passe muy li leen indiloon tey ci sen acte du jour. <laughs> yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100 pour cent bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ne la bile pommade moom itam dafa naturel lépp loo ci jël D'où le la jural effet secondaire jokkool ak ñun yow mi ko yittewoo ci 77 751 59 59 Ou wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am satisfaction totale boko amul ñu daldi lay dello sa xaliss ñun rek ñoko